Euh, ñëw bii ñu fi ñëw nii ànd ak entrepreneur bi du ñëw taf yëngal comme ni nga ko expliqué du ñëw tamit pour euh, parce que dañuy euh, dugg si si dëkk bi wala parce que dañuy ñëw pour ay affichage wala ay màggal déedéet xam nga lii bi mu amee ba tey même bu fekkente ni man ñëwuma avant boobu directeur général ONAS ñëw na fi ay yoon yoon directeur technique ONAS ñëw na fi ay yoon yoon euh, directeur président directeur général bii di Mamadou Gueye di SVTP bërki démb si guddi équipe am yi ñëw nañ fii ñëwaat fa ci suba général Morsek di jiite brigade nationale des sapeurs pompiers démb mi ngi fi woon mais dafa am loo xamante lu nekk ak waxtoom xam nga dëgg-dëgg li indi problème bi yow comprendre nga ko parce que ni nga ko comprendre mooy bu fekkente ni dañoo yokk li ñuy dugal fenn te liy génne yokkul wala mu wàññeeku il faut que foofu am problème tey boo amee benn benn ndab ndab bi nga ci sol loo xamante ni li muy génne ci récolte moo ëpp li muy li ngay sol moo ëpp li mu ngay génne faw ndab bi tuur ndab bi bi tuuroo ci kër yi lay dem c'est vrai que fii cuvette la même fii jàng nañ ni zone bi bindoo ni relief bi bindoo cuvette la fii par exemple kamb la woon mais ni mu nekkee woon kamb ci jamono dafa am ay kamb yoo xamante ni ñoo ko donc ni mu bindoo ci euh, wàllu relief bu ndox ñëwee day dugg moo taxoon ci jamonoy sëñ Saliou mu xalaatoon def fi bassin bi. Mm-hmm. bi mu fi defee bassin bi am na ay kër yu ñu dëkk yu wërale yoo xamante ni ndox mi pour mu dugg fa dafay yomb parce que ni relief bi bindoo la. ni suuf si mm-hmm. bindoo la mais loolu teewul bi nga xamante ni problème bi am na. Euh, kii di Modou Gueye ku xam. dossier bi la ndax liggéey na fi. Mm-hmm. bu dee moo njëkkul def bassin bi tamit réhabilitation bi moom moo ko defoon. kii di Cheikh Bass Abdou Khadre ku xam liggéey bi la parce que amul benn yoon boo xamante ni liggéey bi mës nañ ko def te moom dugalu ci loxoom bokku ci. léegi bi problème bi amee su fekkonte ni dañuy jug pour ñëw population yi gis ñu yaakaar ni ñu ngi taxaw rek seen wet te indiwuñu benn solution kon naka la ñuy def dañuy ñëw ci saa si ñëw gis leen. mais defuñu loolu. li ñu def mooy dañu yónnee techniciens yi techniciens yi ñëw étudier ko bi ñu ko étudier xool lan mooy dëgg dëgg problème bi. problème bi li ko indi mooy comme li nga wax am na yeneen réseau yu ñu ci yokk. am na yeneen réseau yu ñu yokk ci basan bi te waru coona attanu ko. Mhm. bi mu ko attanulee ndox bi di déborder. léegi naa ñu woo ñi nga xamante ni la seen xel màcc jëm ci loolu. ñu toog waxtaan ñu wax ñu lan mooy solution bi ñu woo entrepreneur bi. ni ko mais est-ce que lii mën nga ñu ko régler mu ni mën naa ko régler. ñu ni ko naka nga koy régler mu ni régler bi ci ñaari anam lañ koy régler. bi ci njëkk mooy dañuy yokk capacité de puissance su pompage bi. 2830 mètres cubes la actuellement bassin bi di pompé li nga xamante ni moom la ñu tëral ak moom dañ ciy yokk ci saa si 2000 mètres heure mu nekk une capacité de 4830 mètres cubes heure ñaari tuyaux ñooy jóge fii jëm euh, Darou Rahman gis nga man biñ ma waxee sax ni ma euh, moom man su may wax damay wax li nga xamante ni moom moo am du ma nekk di keeg yooyu mm. parce que li ngay waxee nii mu nekk dëgg ñu nit li ñu lay wax mooy dëgg alors jot nañu njëkk a wax ak kenn bi ñu waxee ak moom avant moom ñuy wax ak ma duggee jot nañu wax ak kenn mu wax ñu ni mu ko nar a lijjantee mais man dama ko contrôler dama ko vérifier dama woote ci ginnaaw société bi nga xamante ni mooy defar tuyau bi ma woo leen man leen est-ce que waa ji li mu wax nii mën na nekk ñu ni ma ay la mënul nekk bu jëlee engagement ni dina ko def du ko def daf leen di tardel ngeen engagé wu ci te du mën a nekk ma ne ko wax ma lan moo mën a nekk mu wax ma li mën a nekk biñ ko gëstoo gëstu ba xam ni kooku noon bëgg jël liggéey bi mënu ko def ñu wëlbatiku woo Mamadou Gueye bi nga xamante ni d'abord xam na site bi bu baax xam na kii bi te tey sëñ Mountakha li mu wax ci moom dafa dal xel. Mm. sëñ Mountakha daf ni bu doon moom moo koy defal boppam moom la koy jox. Mm. kon ndokk yàlla bu fekkente ni ñun suñu xel jàpp na ko bañ jox ko ko. Mm. léegi bi ñu wooyee bi ñu ko wooyee démb journée bi yëpp 9h ba ci ngoon ay 18 maa ngi toog man. moom directeur général ONAS directeur technique ak moom directeur technique am sama bureau ñu waxtaan xool lépp loo xamante ni moom moo war ci saafara ñu indi ko. ñoom seen techniciens yi juboo ni yokk capacité bi ak def deux tuyaux yi. moom moo ci war ma jël sama téléphone. yëgal ko président de la république. wax ko ni ko waxtaan nañ kat ba tënk ñoom lii lañ gis ci solution président ni ci lan lan xaalis bi ñaata la ñu ni 4 milliards la mu ni ci saasi. nanga woo ministre de finances ma wax ko ñu viréel ko un milliard mu tàmbali liggéey bi démb ci ngoon ñu viréel ko un milliard pour liggéey bi tàmbali looloo waral nga mën a gis fii tuyau yi après mu mën a jël engin indi ko fii léegi suñu liggéeyee loolu mais liggéey bi mënul pare fii ak màggal parce que fii ak màggal suñ ko jéemee def dinañ yàq réseau on réseau Sénélec dinañ yàq réseau SDE alors lu ñuy def mooy dañuy jël tuyau yi ñu teg ko ci kaw te même tuyau yi amul Sénégal lépp actuellement li ñu mën a am Sénégal 4 kilomètres la am moom heureusement am na benn fournisseur bu ko mën a jox 4 kilomètres 500 ñi ngi koy teg ci camion di ko indi. loolu la ñuy tegandi diggante fii ak Daaru Rahman. muy 8 kilomètres 500 yi mais benn tuyau ba màggal gi jàll. bu maggal gi jàllee incha allah parce que marché bi yëpp mooy 4 milliards mais dañ ko avance bu màggal gi jàllee ñu ñu gas euh, si suuf suul. tuyau bi nga xam ne moom lañu teg avant màggal gi pour soulager population yi léegi beneen tuyau bi nag ñu door ci tàmbali. ba pare deux pompes la ñuy teg nii mais bu màggal gi jàllee quatre pompes la ñuy teg. donc loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu indi comme solution te bu fekkente ni yéen yéen a nekk ci nekk si ndox bi di ko dund tamit. jàpp leen ni nu leen méttee méttee nañu noonu. parce que su fekkente ni yéen yéen a ngi koy dund mais ñun du ñu mun nelaw du mën a nekk si jàmm. tant que yéen nekku leen si jàmm mm. donc jàpp leen ni bu leen méttee benn métti nañu fukk